champion général ziar la. jili booy léegi jaay taar nga def booy. amiin looy ma ci tuñ nii booy. di sax booy <laughs> ah, non am nga xaalis nag. amiin ni nga leeree nii moom am nga xaalis. yàlla démb dégg naa yaa jël oto bi yàlla na la ji. waaw bokk nga final. waaw final ak Doudou Sané. Doudou Sané nga bisu bisu du bisu am bisu tamit du bisu ñàkk. waaw noonu la demee Doudou Sané bëre nañ yàgg nañoo bëre démb lay soog am ci man ndam di ko féliciter di ko ñaanal yàlla mu jikko di santaat yàlla tamit ndax ñun ñëpp ay ndaw lañ te tamit dañuy daan di compétir naan ku jugee sa kër rek da ngay jàpp ni boo ñëwee da ngay am ndam mais lépp lu suñ borom def rek da ngay nangu dogal li quoi waaw noonu la demee. est-ce que jàpp ni mënu laa daan moo tax nga bëree ni nga bëree ba mu. waaw sañ-sañ bi sañ tamit dañoo amoon problème mu géew comprendre nga mais champion la gi mooy li ma la wax rek lamb moom boo waree géew gi xat na trop xat na trop ba ñun mbëri ñu ñoo jugoon naan gars yi nañ leen arrière pour ñu a bëree mais noonu la asport noonu la quoi vraiment démb am ndam mënu ma woon dara lu ma mënoon lu ma def damay ñàkk di ko sant yàlla rek di ñaan ma nit yàlla suturaal ma tey ma jël. tey eh, jàpp nga ni dina yomb. waaw ah, moo tax ñu bàyyi suñu yite yëpp ñëw. boo dajee Doudou Sané nu muy demee. dinañ leer fii léegi léegi. allez deux bu retour tey. noonu la demee nag na tax kenn waxatul loolu noonu la demee. Ndeysaan le grand champion général Malika mu ngi noonu Ndeysaan Ndeysaan ma ngay dongali lii mooy lamb ay eh waay macha allah door xale am doole bëgg sport lii lay jariñ ay eh waay ba ngay jaayu. ndeysaan eh. laa ilaaha illallah. tur bi. Jame Faye Jame Ñaning. Jame Ñaning. waaw. Jama démb gis nañ la nga ñëw fële. Euh, ñàkk la quart de finale wala demi daan moo perte finale bi moom ak Serigne Ndiaye. waaw wax nga dëgg moo moo daa daanu finale. Ah, ah. waaw Rakro gis nga. tay nga ñëw. compétiraat mel ni sport bi da ngeen ko gëm saa su rek bu ngeen ñàkkee da ngeen di gën a ñëwaat doyalaat seen xaftaan tay loo jël. waaw xam nga lamb moom compétir la rek moo tax suñu xasee ba commencé moom commencé nañ rek waaw moo tax chaque jour suñu ñàkkee suñu jëlee tamit dañuy continuer waat rek waaw. jamono depuis koor bi koor gi jeexee ba tey bii mooy sa ñaata sort. bi mooy sama deuxième sort. démb ak tey waaw. démb nga toogee. ma daanu demi final. tey di ñaan yàlla may ma ndam ma jël ko. non commencé guñu. Ah. waaw mais ñu ngi waaj quoi waaw. waa jaaj bëggee waay Sam. ay ca kaay yéeg lii bu continué nga ñàkk sa làmb taxawal bëre dañoo yàqamti abib sifle waat nañu ngay lewtoo Diarra sëgg na jàpp ay loxoom di ko déglu Franc ngay lewtoo moom kese ñu ngay lewtoo lewtoo bu bar bu la neexee ñi diibal ko cey cey Franc koy sëqatal waaye jaara du coma ku nekk ñoo bok tànk yi jiital moo tax lamb du met jàppante nañ Franc nengeñ bee ko sonal heure bu duggee xale bi nengeñ ko rëpp na abi na ko arbitre tas na lu xew arbitre nee leen ku ne taxawal boor moo mën a décider troisième avertissement soo si mu mel ni Franc jël na ndam li ñàkk nga sa combat xamoon naa ko. Wassare Lamb Touba Kouta la ak Modou Modou Fatick mbokku Leewtoo TV mbokku Wassare Lamb at bi sifle na diggante ak Modou fatik bii du Modou maana bu Leewtoo de. ndaama ak njool ña lew léewtoo Modou Mané tànk ba la bëgg a jël waaye mënut a ne moo la prolonge Modou Mané Toubacouta Modou Mané ko daal koy daan moo ko prolonge daan nañ Modou Mané ah Modou làmb Petit Lo dugg na tànk yee Patuloo daa jël nijaay ba mu jeex. Patuloo daa jël xarañ loo ba mu jeex. soo gisee taxawaay bi gis Modou loo waaye Modou bàyyi ko ci ginnaaw. nee na ko loo wàq ma suul ñu ngay léewtoo ba léegi. léewtoo bi yàgg na dara amagul. ba léegi dara amagul ñu ngay léewtoo. ba léegi ñu ngi lewtoo dañuy baral lewtoo ba ci yàgg ñu diigal ko Petit jël na jëm tànk bi waaye daa woote xale bi teel a gis téléphone bi daal di koy daw Modou Mané Petit Lo ku ne tegante sa morom bopp ca wet ga Doudou saane ngay bëre ca wet ga laaliwaat na ko laaliwaat na ko plaqué la koy jéem def mënta ne batuloo batuloo jël na ñaari tànk la daan na ko la ñaari tànk la jël daal koy ramassé dañu dem ci Doudou Sané rek Doudou saane poids lourd la ko muy bëre poids léger la waaye ci làmb gisee ni bu ñu ndax keroog Tonnerre Junior jommal na ñu gis Dourou Sané Dourou ma nga jàppanteeg moom Dourou Sané defal ndànk Dourou Sané war na ko ndomba buddi na ko door ci door doxul jàmm lay la xay door doxul jàmm cey Wassare Lamb teel ñoo libéré Dourou Sané vite fait bien fait daal dem suñu yoon ñu ngay lewtoo laay laa waaw na jël tànk ba daal koy daan dem na yoonam muy noonu nag Adama général Malika ak Waly Ndione at bi sifle na di génn seen diggante ñoom ñaar waaye kenn Doudou Sané jël bu na nga gis ci moom général Malika Waly Dione arbitre bi sifflé na Leewtoo ñu ngay déglu wante ku ne sëgg Waly jug na def déplacement latéral général topp ko ndànk-ndànk doucement yàqamtiwul dara lan la général général nga koy général day yooru ana xam nga yooru général day yooru ba jàpp ne leen niip lamb feeñ général Malika ak Waly Dione nekk yaa ngi sëgg di xool pexe boo jaar pour daan sa moroom Waly Dione dina tànk boobu waaye général dafa diis mu daal delluwaat ginnaaw jàppante ku nekk sax nga loxo ci gañoo astafurlaa loxo ci ngemb <laughs> olof a xóot général plaqué na ko. daan na ko dool doxul jàmm c'est évident c'est général le fils de Malika libéré ñu ngay leewtoo at bi waat na diggante Franc bu parcelle mbooloo ak Ousmane Senghor Franc moo ngéem boo ngéem lu ñuul li ñu ginnaaw Ousmane Senghor ngéem lu ñuul fete ñu suñu càmmoñ ñu ngi sëqalante ku nekk waaye dañoo génn at bi nee leen dellusiwaat leen ci biir géew gi. mu ngi noonu nag deuxième avertissement pour Ousmane Senghor lii bu jëmee kaw du la arrangé bu jëmee kër du la arrangé ñu ngi siflewaat. diggante Franc Parcelles Mbooloo ak Ousmane Senghor ñu ngi lewtoo Franc Franc takk na Franc takk na ko jëm na ko plaqué mu bañ Franc ak Ousmane Senghor Franc moo nengeñ nengeñ daal toj làmb Franc Ousmane Senghor Franc Ousmane Senghor loo def nii Franc war na ko ndomba Franc da ngay buddi wala da nga koy plaqué Franc plaqué na ko jeex na fam la yegg sori fu ñu fi yegg mbër man ci suuf laa ci gis. ak Leewtoo production Leewtoo TV arbitre bi sifflé na diggante Toubacouta ak Petit Lo Ndaama ak Njool ña ngay Leewtoo Petit Lo ak Toubacouta Petit Lo mooy ndaamali moo fete suñu day joor Toubacouta mooy njool li ngemboo ngembalu ñuul li fete suñu càmmoñ cey jam production tey fatik Toubacouta Petit ñu ngi lewtoo Petit Lo na koo dugg génnaat Toubacouta Petit Lo Petit Lo nengeñ na ko Toubacouta ngi jéem a jël ngemb Petit Lo Toubacouta Petit Lo Toubacouta Petit Lo Toubacouta laay laxay daan na ko Toubacouta daan na Petit action ci kaw action la woon. Petit Lo teg Toubacouta teggi teg ba soog. mën nañ ne expérience ak force expérience contre la jeunesse. Doudou Sané moo ñu woon ginnaaw. ngeem moo ngeem lu vert li muy noonu nag lamb ji deux deux deux lay nekk wala trois deux Doudou Sané daan na ko trois fois kooku di ordinateur ordinateur daal di daan Doudou Sané deux fois at bi sifle na te la ñuy jàppante war tàggalikoo Doudou Sané yaa ngi demee public concentré wul jëlal tànk ba. da ngaa bëre public da ngaa bëre public da ngaa bëre public jëlal ba ngooy na ci laay la xëy la doxul jàmm cey dudu san dool doxul jàmm ba jil waaye ordinateur du ci génn déedéet laay la xëy laa Mbàkke du ci génn doole bala waxoon naa ne ko l'expérience contre la jeunesse doole doxul jàmm kenn du dudu ci même réew laa ilaha illallah mu ngi noon nag demi bu jam production diggante général Malika ak waay Cang quart finale général Malika ak Waly Cang bi Waly na du Waly Seck ma xam bii Waly buy sëgg di bëri la Waly nee ngeen na général Malika Waly Cang ak général Malika quart de finale général Malika Waly Thiam général Waly Thiam ci biir géew gi Waly li nga ko bëgg a def mënut a ne général du mbër mu ndaw Waly Thiam général Malika Waly fàq ndox mu ñëw waaye général daa teel wuyu sentir ko daal di génnaat général Waly Thiam. Kar Rafina poids lourd waaw waaw plaqué na ko daan na ko général daan na Waly Thiam général Malika daan na Waly Thiam da koo plaqué ànd ak moom ba suuf François Gomis Ndiago or ba ca de finale lourd Jam Production Franc ak Nianing Franc am na jàpp na ci ngeeño Franc plaqué na ko demul ñoo ngay bëre Franc jàpp na ñaari loxo ci gaño Franc jàpp na loxo ci ngeem liñ def nii mënut a ne loolu wóorul Franc ak ñaning Franc ak jama ñaning bul bi tourné na ku nekk am nga benn loxo ci gaño Franc ak Diama Nianing ku ne jàpp nga sa loxo ci ngeño boo jàppee da ngay bëre boo jàpp na ko rëpp na ñu xool arbitre bi tàqal na leen lu xew arbitre lu xew arbitre lu xew daa mel ne arbitre ndeysaan Doudou Sané ngi noonu digganteem ak Toubacouta aadama bëre woon nañ ban dëkk ñoom ñaar. Ndangaan Samb. Ndangaan Samb lañ laale woon ku daanoon. Doudou Sané moo daanoon. moo daanoon Toubacouta mu mer. par décision. mu mer. ñu am fa coow. indi fa raag bu doy sa bëgg tas làmb ji. waaw. tey ñu fas yéene laale ñoom ñaar. ah du yomb de. ay ca nañu xool sama cadreur Adama. le cadreur des cadreurs ndaysaan combat baa ngi noonu dox ci diggante Doudou Sané ndaysaan ak Toubacouta wàllu wee nga am ca Émine François Gomis ndaysaan ak général Malika <laughs> ay lamb lamb daal ay lamb ñoom ñaar daje woon nañ arbitre sifflé na Toubacouta mooy njool mi Doudou Sané mooy ndaamalu xees waaye bu njool yi safee ndaama yi génn lamb ji waaye ndaama bi neexalut kenn Doudou Sané <laughs> ndeysaan ñu ngi lewaatoo ngàdd na ko da lay plaqué Toubacouta nag da ñeme du yomb ñoom ñaar du yomb général du yomb plaqué na ko mu bañ Toubacouta nañ la doxaat na ci koom ñu ngi bëre ñoom ñaar tey day neex waaye xale yaa ngi laay laay lan la <laughs> jëlaat na ko ndeysaan Toubacouta ak général Malika wala boog ak Doudou Sané ndeysaan du yomb général puusal sama kanam moo tax maa lay tudd rek ndeysaan Toubacouta jàppante nañ ay arbitre ndeysaan ñoom ñaar jàppante nañ mais ak Franc dina neex ci demi-finale bi ndeysaan ñu ngi noonu Toubacouta ndeysaan Toubacouta ngi noonu ak Doudou saane ñoom ñaar Doudou Sané da koo ndeysaan ndengeñ bu yàgg nag baaxul ci njool ndax bu yàggee nga toq lamba ngi noonu ndeysaan ñoom ñaari xale yi <laughs> kenn du jam production xale la boo xamante ni ndeysaan dama yàlla jéggal saa su ci kàddu yi li ma koy wax ne ko bu seytaane jàpp la xale bu ndaw di ëffal ay mag ñuy xeex di bëre sa xol di sedd waaye yàlla na jàmmam yàgg moom jamay kee xale la boo xamante ne am na ambition am na gëm-gëm am na lu mu bëgg moom Jamaïcain ndaysaan mbokk yi ñu ngi fii ci Fatick Jam Production moo ñu fi woo drapeau ministre des sports monsieur Matar Ba tey la dimanche 16 mai 2021 ndaysaan ñu ngi noonu il est 22 heures 12 minutes wàllu wee arbitre bi sifflé na. dox ci diggante général Malika ak Franc Dourou Sané daw na jëli ko ndeysaan Toubacouta bañ na général Malika ak Franc ndeysaan ñu ngi noonu Franc jël na général bañ na da koy sol déet dina yombam déet ndeysaan Adama defal ma ko gros plan di am ñoom ñaar ñëpp <laughs> ndeysaan le cadreur des cadreurs Touba jàpp jël na ko ndeysaan général Malika ak Franc Toubacouta ak Doudou Sané ñu ngi noonu ci diggi géew bi ndeysaan dara xewagul ndeysaan ndeysaan général tu plaqué na ko bañ dañuy génn saako yi génnaat nañ arbitre atteel wala déet ndeysaan ndeysaan ñoom ñaar du yomb ndax dañoo bëre ndaysaan mu génnee ko par point dañuy ñëwaat du yomb xool ko dina wax Toubacouta dina wax ak moom waaye ñu ngi ci Franc ak général Malika du yomb ci demi-finale bi ndaysaan ñaari xale yaa ngi noonu arbitre bi sifflé na waaw avertissement du Sané benn Doudou normal bëreel c'est normal c'est normal bëreel ndaysaan Toubacouta bëgg koo sàcc daa bëgg a bëre ak moom ba mu leer mu daan ko ndaysaan ndaysaan Doudou Sané ndaysaan Doudou Sané waa Doudou Sané lu muy def nii waa Doudou Sané eh ngàdd na ko day ñëw Franc na général bañ na ña naaw ndeysaan Doudou Sané <laughs> ay Adama loo bëgg def lii da daw jël fii door na ko tànk dalay daan dalay daan Toubacouta wër na ko ndomba Toubacouta wër na ndomba Toubacouta wër na ko ndomba lu mu nar daan na ko Toubacouta daan na ko laa ilaaha illallah daan na Doudou Sané waxoon na ko Adama Doudou Sané da koo daanoon mu metti ko tey wane na général ak Franc sol na ko dina nangoom déet waaye làmb neex oh neex ndeysaan oh Toubacouta daan na ko daan na Doudou Sané jël bu rëy ndoom ba forcé ko. daan ko jël bu amul benn werante <laughs> Franc ndeysaan du yomb moom ak général Malika du yomb ndeysaan Franc général Malika ñaari xale yaa ngi noonu Franc général Malika <laughs> ay lamb lamb garaaw tey surprise bu am na Toubacouta waxoon naa ko dañoo daje ñoom ñaar Doudou Sané génne ko par point tay mu jël décision bëreeg moom bëreeg moom bëre bu rëy daan ko jël bu amul benn werante ndaysaan gis nga xale yaa ngi noonu ñu ànd ak Doudou Sané mer nañ ndaysaan mer nañ waaye làmba ngi noonu du chaque jour lay neex démb moo jël tay moo ñàkk démb daa général tey moom moo ñàkk lamba ngi noonu ndeysaan Franc ak général Malika du yomb combat bi da a jaral ñoom ñaar ñëpp ñoom ñaar ñëpp da jaral jàppante nañ waaye dara xewagul ndeysaan ña ànd ak Franc ngi woote di woo sëriñ bi naan ko général Malika am. combat bi yàgg na defal ñaan sëriñ ba lam di dee léegi dañ koy wax moo lay wan ne mbër lu ne ci digg géew bi du du gén du jóge ci sëriñ Toubacouta mii tey décidé na de xaw ma dina jëlam déet waaye tey décidé na de boo xoolee kii ànd ak Toubacouta di wuy téléphone day wuy téléphone sax ak mbégte xol bi sedd na lool waaye yëkkati sa tubéy bi nag yëkkatil ci la bokk daa war a jóg ndeysaan temps bi jeex na arbitre attel waaw waaw kaay leen noppalu du yomb Zier lu wax waxu ko de noonu taxaw ci diggi géew bi ndeysaan xoolal lii nee na ko kaay ma wax kii daa woo sëriñam kee woo sëriñ bi xoolal kii di dugg ci Franc da koy wax sëriñ bi wax waaw waaw koy wax ñoom ñaar ku ci ne woo la sëriñam laay <laughs> laay la sëriñ bu ci sa mbër jël ka dal ci di benn guddi deux benn guddi quatre cent mille benn ko mën mbër bëre benn tàkkusaan ñu tegal la trois millions nga daan ñibbi ndeysaan saraxa nañ tàngal jox nañ ko wax yi loolay ay waxkat ngeen sarax naa leen tàngal ndax ma daan <laughs> ay làmb garaaw ndeysaan arbitre bi sifflé na général Malika ak Franc ñoom ñaar gi leetoo ba tey dara xewagul <laughs> ndeysaan làmba ngoog dara xewagul ñoom ñaar gi leewtoo daw na jëli mbaadu da koy daan oh daan na ko daan na ko daan na daan na ko ndeysaan général teg na ans daan na daan na ndeysaan kaay leen général Franc daan na ko Franc dem na final mook Biram Bakhoum Babacar Ndour bu la neexee Biram Bakhoum ak Biram Bakhoum moom nga jàppale mooy njaago bi rek del wax njaago la. ànd bi sifle na dox ci diggante Biram Bakhoum ak Babacar Ndour mooy final poids léger bi Biram Bakhoum moom moo leen wan moom moo féete càmmoñ ngemboo ngemb lu ñuul li Babacar moo ngemboo ngemb lu weex li Biram Bakhoum nee moom mooy njaago bi. Ndeye Mbacke doxalal doxalal Ndeye Mbacke. Biram Bakhoum. ak Babacar Ndour final poids Jam Production Fatick Wassare Lamb ak Leewtoo TV Babacar Ndour Bakhoum ndeysaan nee na ma ne ko sànq noo mu ne ma njaago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 ñu ngay demante baaraam. ndeysaan Ndeye Mbacke sama xel dem na ci Zeus borom Brésil Séeri Faati sama xarit bi kenn du moom ndeysaan yaa baax ci man sama waa ji may dee di ko wax di ma ko yéene yàlla bébét bi sotti waxtaanu géwél lu mu leex leex luyul ma sama yaay xaj na ci. may ma lay mujj. ba léegi njaago wër na ko domba Babacar wër na ko dina ko daan njaago bi def na kat appi wala déet doo ci génn waaw waaw daan na ko Babacar Ndour daan na ko Babacar Ndour daan na ko ndeysaan daan na ko jug leen ñu wéy jug leen

gis nga mbokk yi ñu ngi noonu toll ci final poids lourd yi fii fii ci ndeysaan li nga xamante ni mooy Fatick drapeau monsieur le ministre des sports Matar Ba jam production moo ñu fi woo mise bi 3 millions la compétition yi ndaanaan yi bari daanu nañ waaye ñaari xale yi ñoo dem final dox ci diggante Toubacouta ak ki nga xamante ni mooy Emine François Gomis kan mooy ndaanaan bi ndaanaan ay ndaanaan wala feeñ. kan ak la. ñu ñëpp ay ndaanaan lañ général ndaanaan la. Dourou ndaanaan la. Toubacouta ndaanaan la Franc ndaanaan la moo tax ñu yegg fi ñu yegg waaye di naan jaloore borom koy nettali boppam bàyyi jiili maa dem final dara dàqu ko. Ndeysaan ñu ngi noonu. Ndeysaan ñu ngi noonu ñoom ñaar. ma ngay laajte. arbitre bi sifflé na 13h44. maa la ko wax Mbacke. le 16 dimanche mai 2021 ici stade Fatick Jam Production drapeau Matar Ba ministre des sports arbitre bi sifflé na diggante Franc ak ku ne ngemb ngemb mu nga ngemboo. 22h44. ndeysaan nañ jàppante ñoom ñaar. Franc ndeysaan Franc ak Toubacouta Toubacouta da ko bëgg a dóor tànk maytul plaqué bi forum la ndeysaan maytul plaqué bi Franc ku nekk yaa ngi jàpp sa loxo morom arbitre bu ñu gis Franc mooñ fere suñu ndeyjoor Toubacouta suñu càmmoñ ñoom ñaar ndeysaan kii tànk ndijoor la jiital kii jiital tànk càmmoñ fàqan na ko dugg na da koo bëgg a suruxal. Ndeysaan. jël na. jël na Ndeysaan. Jam production moo ñu woo. mise 3 millions. koy duppee Matar Ba. moom mi nga moo langoo ndombal tànk. tàggat yaram fii ci Sénégal. mu bëgg lamb ba jeex. lim def tey waroon na ko at bi tàqal na leen. nee na avertissement. avertissement pour Franc. arbitre bi sifflé waat na. Toubacouta ak Franc arbitre bi sifflé waat ba léegi. laa ilaaha illallaah doole doxul. daan na ko ndeysaan. Franc jël na compétition bi daan na Toubacouta. laa ilaaha illallaah ndeysaan.